يغفر من جميع خلقه الله من كان يؤمن لغين ويهلك سا كفر وينسر من يساك يا الله محمد المسك الأخيار خايدنا لجنة الخلد يوم الأسر يا الله عليه صل وسلم دائما أبدا ومن غفر ليوم الدين يا الله ndeyu sa baay Mbàkke leer taamu moo ne ci alaaji Fallu Mbàkke nii leen ma juumoo mami baay jiile moo ne ci alaaji Fallu Mbàkke nii leen ma juumoo di wax rek si turu daayira xidmatul xadim soppe sëriñ Jili Mbàkke borom léegi léegi di wax tamit ci turu sunu jëwriñ sunu président sëriñ Fallou Ndiaye ndax moom moo waroon a wax kàddu yi waaye doylooñu ak xëy na xaw a am ngànt moo tax mu yebal ñu ñu ñëw waaye li li lépp moom la di ko sant nag bu baax a baax moom moom mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ mënuñu ko mënuñoo tudd daayira Xidmatul Xadim ginnaaw Serigne Jili Mbacke te tudd ñu Galas Njaay di ko ñaanal moom it suñu borom kàttanal ko yàggal ko ba yéene gi nga xam ne am na ko ci liggéey bi Sëriñ Tuubaa defal ko ci barke Seexul Xadim ndax dëgg faal bu demee ba egsi fii lépp mooma i coonaam ak lépp ginnaaw sëriñ bi kon sant nañ ko bu baax a baax a baax mi ngi mel ni teew na fi amoon na yéene gi lool waaye xëy na nii rek la waroon a mën a demee sant nañ bu baax a baax Mbàkke suñu waxi démb ja rek mooy suñu waxi tey ñun ñoo ngi nii rek ñun fukk yóbbuwun dara yóbbuwun ku kenn ñoruñu tamit ku du sa jëmm ji barke Seexul Xadim loolu nekk ci xolu ñëpp ñun nag buñ dee wax ci ci moom ñu yëgee ak suñu tolluwaay day tax ak fi ñu toll si moom yéene gi ñu am si wax ak moom wax wax lii nga xamante ni moom lañ bëgg wax sax duñ ko man ndax fi fi mu toll si ñun kon loolu lépp yàlla xam na moom it sëriñ bi xam na kon ñi ngi ñaan suñu borom mi nga xam ni mooy moom moo man lépp bàyyi ñoog sëriñ bi mu yàgg fi lool ba liggéey bi nga xam ni mi ngi ko fas yéene ànd ak ñun mu yeggale ko ba sumbaat yeneen ak yeneen ak yeneen bisub tey bii nag dañ si santaat suñu Tuubaa bu baax a baax ndax àdduna moo doxee nii te fii kenn ku si nekk xam na kenn ku si nekk xam na yéene gi ak waajtaay wi nga xamante ni ñu ngi ko doon waaj bis bi ñëpp yàlla xam na la te ba léegi sax gëm nañ ni ñun daan sant suñ Tuubaa barke Seexul Xaddim ñun nag ay taalibe rek lan te tamit li ñuy déglu mooy ndigal ndigal rek suñ bi fu mu ñu jëmale fa lañ jëm fu mu ñu jaare la fa lañuy jaar kàddu gi benn kàddu la te moom moo ko yor waaw ñun nag liñ war mooy takk suñu laxasaay di liggéey suñ tubaa kese moom rek moo na ñor dara ñoruñu bu ñu yoroon ay millions barki Seexuna Ahmadul Xadim jóg ni dañuy liggéey suñ tubaa duñ ko jaarale fenn furu si jëmm ji ndax moom lañu am te tamit moo tax ban egsi fii ñu egsi suñu xel ak suñuy jëmm nekkul woon si leneen lu dul yeneen ak yeneen mu xëcc ñu tàggat ñu xirtal ñu si lii ba yàlla dogal ñu egsi fii ñu egsi kon day ñaan si barki Seexul Xadim mu yàgg ñoo tette yàgg ñoo gunge at moom it mu fekke ko lool te tal ko ak soxna si nga xamante ji mooy waajur yi muy soxna njaxan mbàkke xëy na xam naa sax dina seetaan li waaye tamit yéen a gën amoon mooy ñu defee ko comme nañ ko daan defee ànd mobiliser wu ànd ak sëriñ bi dem toog si kanamam mu def ko comme nam ko daan defee waaye xëy na ba léegi daal sëñ sëñ baa ngi nii rek ñun moom la ñuy déglu ñun ay taalibe lu mu wax rek noonu la waaw gaa yi nag ñoom seen wax lenn la mooy ñun amuñu lu sëriñ bi te tamit suñ addee ji buñ koy yëkkati di ko jox suñ tuwaa tax ñu ko di ko def te tamit àndewuñ ko kenn ku dul jëmm ju tedd ji ba tax na ñu yëkkati ko boole kook li nga xamante ji moom la jëwriñ Cheikh fay mi yor xamal ko ne ko ñun moom lii nii suñ tuwaa rek ñor ñun dara ñoruñ suñ tuwaa rek ñor te tamit dañoo ñëw ngir wut sàkku si ak ñaan te tamit delluwaat sa waar wa waaw lool loolu moo fi tax a jóg moo tax indi moo tax moo tax ñu ñëw fii bi ñuy soog a door daa metti woon lool mosu see dégg lu ko neex barke Seexul Xadim ku ne da daan wax naan sëñ bàjji li li muy àndee gone yi da leen di jariñoo te bu njariñ dee am ñun amaluñ ko njariñ moo nu amal njariñ barke Seexul Xadim loolu dëgg nag du yàgg yàgg na lool du benn at du ñaari at du ñetti at fii bari na si ñu yor soxna barke Seexul Xadim moom moo taxaw may leen soxna bari na suñu ngénte moom moo sol dàllam muy dëkk ak dëkk muy fépp moom mooy so sa taxaw demal ko li mu war def yëpp mu def ko ba barki démboo njaay gi rek moo si mujj moo may soxna barki Seexuna Ahmadul Xadim ak Malick Karame kon xam ne kon kooku ñun amaluñ ko njariñ moo nu amal njariñ ñun nag buñ taxawoon sax naan ñu bàyyi jili moom li ko war si ñun defu ko ñun bëgg nañ ko ba pare te kenn taxul ñuy àndawoon ku di suñ tubaa lii nag li muy wone mooy comme li ma wax rek lu dul dëgg du yàgg dëgg gaa ngi nii nag kon bu dee njariñ moom moo na ko amal ñun amaluñ ko ko xanaa di ko sonal di ko mu ni dégg si yoo xam te ji nak sur noonu mu boole li ko neex ak li ko naqari barke Seexul Xadim ku ne taxaw na naan ah day exploité xale yi rek day sonal xale yeeg naka suñu ñun ñoo ko sonal te kenn ku si nekk bu sa bët xonqee barke Seexul Xadim moom ngay gis aajo boo am mu fajal la ko ku la amaloon njariñ mënul la ko di barke kon ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool lii nag dama koo yàgg a denc sama xol tey jii la ko yàlla dogal ma ko bàyyi jii li moo nu amal njariñ ñun amaluñ ko njariñ barke Seexul Xaddim ngénteel nanu may nanu soxna li li war def ak ñun ñëpp def nañ ko kon gàcce nga laama sëñ bi yàlla nga fi yàgg si barke sëñ Tuubaa jërëjëf Mbacke asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di siyaare sunu jëwriñ sunu sëriñ Baye Jili Mbacke borom léegi-léegi di ñaanal waajuram wi Serigne Cheikh Abi mu yàgg fi lool te wér ak soxna Njaxat moom Cheikh Abdou Lahat ñuy siyaare mbooloo mi yëpp di baaluwaat àq te di leen baalu àq bu baax a baax comme ni ko suñu jëwriñ Mame Moustapha waxee jarul wax ji di gudd ak sëriñ Cheikh Mbacke Dia ñu ngi leen di siyaare bu baax di wax ne suñu àddiyee lañu indi woon ngir bis bi nga xam te si ni moom lañ baaxoo di def muy buñ màggalee màggalu Serigne Abdou Lahat ba ci suba ga kenn ku nekk xam na ne niñ ko baaxoo di ko defee saa su nekk noonu lañ yeesalewaate suñuy jëmm ak suñuy xol yépp ci sëriñ bi ñuy xamal sëriñ bi ne ko ñun ay taalibe dong lañ euh, te ab taalibe nag la Cheikh Ibra waxoon rek ca foofa lañ nekk mooy caabi bu ëppee du tijji bu yeesee du tijji ñun ay taalibe dong lañ te sa maam la ñuy liggéeyal ñi ngi ci gis ñi ngi ci sa ginnaaw tey ak ëllëg euh, li ñuy dégg bari na nag li ñuy gis bari na waaye sëñ Tuubaa mi tax ñu jàpp la yàlla mi ñu tiim xam na ne saa su nekk moom lañuy gis ci yow te moom la ñu doyloo ci yow moo tax ñu ngi lay jàpp bu baax a baax lu ñu la jàpp benn ak yéene ju ñu am benn ci yow saa suñ la gisee ak saa suñ la déggee day gën di yokk te loolu nag du ci ñun ci sëriñ bi la kon ñi ngi ñaan sëriñ bi nga xam ne moo ko def ci yow ñi ngi ñaan mu yàggal la fi te wéral la ñun daanaka amuñu lu ñuy wax suñu àddee ji niñ ko indee ku ko gis xam ne am na lu tax waaye nag li tax jërul leeral ndax yow xam nga ko te comme xam nga ko rek leer na mbooloo mi yëpp ñuy sant waa daayira bi yëpp di wax ne jàmbaar lañu boo xoolee addiye ji liñ fi indi li muy tuuti tuuti tuuti tuuti suñu passeef ak suñu pas-pas bu dëgër moo tax ñu def ko ah, te gëm nañ ne li ci des moo ëpp li ñëw ndax sëriñ bi xam na ko bu ma ko waxee rek moom xam na li may wax li des moo ëpp li ñëw daanaka bu ma yeboon ne màggal gi buñ ko daan def ba ci ñaari fan yi li ci des ci ñaari fan yi ñu waroon a teg ci jëmmi daayira bi li leen waroon yëpp ci jamono jooju lañ ko daan teg foofu la jamono ji toll kon bu jamono ji tollee foofu sëriñ bi comprendre loolu ñun suñu àddee buñ ko indi woon tey sëñ bi nga yëkkati ko jox ko ku mel ni Cheikh Mbacke ji yàlla mi ñu tiim xam ne bu déwénee nii lañ koy defaate barki sëñ Tuubaa liggéeyal gëm mooy nga ñaanal ñu te xam nañ ne boo ñu ñaanee lu ñu mënta liggéeyal sëñ Tuubaa amut te liggéeyal sëriñ tubaa bi li muy rëy rëy rëy rëy bu sëñ Tuubaa dee fay bu déwénee bu bu ëllëgee yow ma bu sëñ tubaa dee fay yal na la ko jox nga fay ñu barki Seexul Xaddim ñun ngërëmal sëriñ bi dong lañ ciy sàkku sàkkuwun ci leneen lu dul ngërëmal sëriñ bi ak suñu gàtt xam-xam moo tax ñuy jëf-jëf ji amaana léeg-léeg ñu jëf-jëf joo xam te si nii doo ñu ko wax waaye xam nga ne lii ñu jëf du noonu kon ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu te wér xam nañ ñu ngi ñu comprendre bu baax a baax ku neex a àndal nga barki seexul xaddim ndax lu nit xewle ci muy jàmm ak muy leneen ak leneen taxawu nga ca li ñuy defal ñun mënaluñ ko suñ bopp te ab sëriñ li mu mënal ab taalibe ndeyam ak baayam bi ko jur mënaluñ ko ko ndax ndeyam ak baayam buñ ko mënaloon du jur duñu jël ko jox ko sëriñ bi kon ñun caaxee wuñ la xam nañ la bu baax a baax a baax a baax xam nañ fi nga ñu taxawee barki seexul xaddim ñu ngi lay ñaanal yàgg ak wér bis bi nag mooy li Maam Moustapha wax rek ndigal lañ ciy déglu amuñu ci lu ñuy xalaat ñun yàlla xam na ko bu buñ tëddoon ba suba nga ne ñu ñëw leen baas billaahi wallaahi taala dañuy baas bu ñu doon boole di ñu yeew ñun ñëpp ñu yóbbu tamit noonu lañ koy defee wasalaamaaleykum wa rahmatullah bi ma duggee ci néeg bi gis tu yi ci saayir ndax ñii kat ay tànk lañ saayir waaye leneen lañ ñoom ak jëfi àddee ji ak lim bi sama yaram dafa daw barki seexul xaddim ak fi jamono ji toll fi ñu toll nii dégg naa léegi kii wax léegi daal ni àddee ji liñ koy xeeb-xeeb àddee ji suñ tubaa dërëm ak junni la yemale waaye billaahi lazi laa ilaaha illaa bi ma gisee mbooloo mi man sama jëm bopp ngeen jéggal waaye damaa xeeb tey jii li nga doon def waaye bi bi bi maanaam bi som bi génnee dara ji Sëriñ Tubaa sama yaram daa daw barke Xaadim Rasul man nag am murid laa Sëriñ Tubaa la gëm waaye ma di leen xamal ni leen lii ngeen jël muy seen àddee ji teg ngeen ko ci loxol seen Tuubaa bàyyi jil nag xam bi yàgg na yàggul waaye mosuñu koo gis ci lenn lañ ko yedde àdduna te am na ñoo xam dañ ci dëkk bi nag meluñu bàyyi jil bëgg na noo mel ni bàyyi jil yi waaye moom nii rek la mën a mel ndax lan soxna Njaxate Seex Abdulaat sëñ Seex Abi doy na sëkk ñoo koy ñaanal ci doole Seex Abdulaat doole dooley sëñ fàlloog dooley borom daarul muxti suñ borom guddal fanam te wéral ko wolof njaana dafa wax ni lu baax la ci nit lépp boo ko waxee lu ko doon mën nga koo catu waaye sëñ Fall daa waxoon maam daan ni nit de bu fekkente ne lu yor def ko sa gémmiñ doo ko mën a catu mukk kon nag ah bàyyi ji li jox la kàddu gi suñu xool sedd na lool den soññaat di soññ suñu bopp ci liggéey suñ tubaab bi lii dara gënu koo rëy gi nga jom ndaw dana ko am mag dana ko am te nag naa la xamal ñaar buñ xoolee Cheikh Modou Moustapha mii njëkk a taaw yoonu murit bi muy liggéey liggéey bu bii du du mag ndaw lañ ko mën a woowee kon nag da ngeen gën a góor góorgóorlu seen sëriñ bi bu leen fi dara jëlee bu dee cër ngeen bëgg sëñ Tuubaa de mën ngeen yem ci moom xaw ma nag bu ngeen bëggee leneen leneen waaye bu ngeen bëggee ab cër ci sëñ Tuubaa na ngeen gën a góoru na ngeen gën a jàppaat bàyyi jiili ab sëriñ la. yar bi ak pëseef bi. waaw comme ku ne xam na ne fii ku xam bu njëkk koñ bi ni mu demee woon nga xam nekk ci football histoire ak yëpp mm-hmm. biñ dëgmalee sëñ bi ñu xam ne moom comme ñu gars yi waxee commence sëñ bi xam ne moo dàq lépp xëy na moo war a yar ñu bëree bëri bëri ndeysaan léegi waaj yenn waajur yi sax loolu moo tax ñu ciy góorgóorlu di ci paas lépp mu gënal ñu lépp it mm-hmm. waaw ndax xaaruñ ci kenn moom waaw ku ñëw fekk ñu ci ku tamit bàyyi ñu ci mm-hmm. waaw li ko tam mooy li may wax ren rek bi ma tàmbalee ñu tàmbali di wax jamono neexut dama liggéey sëñ Tuubaa boo xam ne ren ku yorub dërëm jàppale bañ ko cee a tax ngay wax bay boo nga téyeekoo mm-hmm. ku ñëw barki Seexul Xaddim danaa ko def te nam daa dàq nam daan mel du ko raw lay mel bu dee ci wàllu def def baak yooyu léegi nag xëy na mooy pas-pas bi ngeen am moo tax ngeen demee nii waaye seen lii ngeen joxe ah, moo lépp moo ko dàqal lépp moo dàqal lépp waaw gis pas boobu mu yeneen pas muy daayira maire ak daayira maire balekat yi waaye yoon daaru ñoom Moustapha ñëpp mooy loolu lu yàgg loolu rek mooy lépp loolu lu dëgg la mm-hmm. daayira ba ñoom sax ni ñu soññee koo ci wax bëgg-bëgg géej yéene ni léeg-léeg ma tooñ leen sax ni leen bu ñu ko defee directement Dakar la ñu yóbbu waaye ñu ñëpp pare pare googu mooy waral nag waaye ñaanuñ yàlla dara di am fitna loo xam ne moom ci ñun lay jóge te ndigal rek tax ñuy def waaye nu gën a baaxee danañ ko defee noonu bu soobee Sëñ Tuubaa insha allah rabbi waaw waaye bis bi moom moom lu ñu fomm benn yoon ci anam yi moom defin bi nii wala defin bi nii waaye bu soobee Serigne danañ def lañ daan def waaw bu maa ngi ko wax Cheikh ne ko buñ demoon ba tey jii ñu bàyyi bâche yëpp danañ fexe ba nañ da indee jàngkat yi yëpp di ko taarale danañ ko def donte ci saal bi filmkat yi film ko bu jàllee ñëpp gis vidéo yi xam ne dundal nañ ko nañ ko daal ah, bu soobee yàlla waaw def moo xam suñ ko nuñ ko mën a def ñu ko doon def di ko gas di ko tuur danañ ko togg danañ ko def incha allah waaw waaye daal fexe moo optaal yi amul lu ndigal te waa sax keroog am na ko may naa ma yéen si yéen sëriñ bi yéen a ko doyloo def yëf ànd ak moom mm-hmm. léegi ku mooy seen kilifa léegi ana moom kan mooy kilifaam sëñ Mountakha daa teere yëfi ma ne daa xamul li muy wax xam ne lépp lu ñuy def lu mu gën a rafet rek ci lañ jëmee ci na jërëjëf Mbacke jërëjëf dana leen seen xel moom lu mu def di ko def ñu ànd dem police bi la bu doon la daal Cheikh ngeen koo xam ne doon ko gën a gore ci dara moom muy guddi muy bëccëg sama jëm la loo ci amoo leen ko ci yéen waaw parce que yàlla baax na siyaare bi ñu daan def bisu màggal suñu blaat bi moom comme que digal ji comme dañ ko daa defee dañ teewul addee ji dañ ko joxe dañ ko daa joxe hmm. waaye donte comme dañ koy oyofal am ñu dem rek wax ndigal li moom suñ ci wax na ki yooyu hmm. bisu bee danañ ko xool ba mu gën a rafet ja def lépp rek ba mu gën a baax bu soobee yàlla incha allah ci siyaare si Cheikh Mbacke Diagne man ndaw di am mbégte bu kontaan li muy wax lépp ñoo ko yàgg di ànd te lépp loo xam lu rafet rek lañ lañ chaque jour nu mu gën a baaxee nu mu gën a rafet rek lañ wax ak seen gaynde nga xam ne moom ba yëf yi tàmbalee ba tey mi ngi Dakar bi ci sonn jàngkat yi sax ba ñuy bëggoon ñu ñëw sax ñëpp mi ngi ci waaw nga xam ne loolu mooy pas-pas ak kii ak yëpp li am solo nit ki boo doon di a gisante gëj a déggante lépp mooy la ci xol rek saa la ndax sànq rek laata muy ñëw déggante nañ ci lu yaatu yaatu wax ci lu jëm luy jëfal bis bi ak yeneen ak yeneen waaw mm. doon gëj a gise gëj a déggante bi ci am ku ci gis ana sa waaju la lay bokk ba loo xam ne léegi lépp rafet mooy ci liggéey sëriñ bi rek lañ lañ ko ànd mooy ilaa dalatu min ilaa yi jalaba وإن زراد الإله سلما لي جاد بالتوحيد ربيانات مسجاد لي بخن واللوات برأني باخي من الأمراض وكب من أنكر باهترادي لو ذكوري على آياتي حبدا خديما فاس بالحياة أشكر شكر الذين سربوا من حسبي ولجنان خربوا وصايا لا ترى لخيري معجزة بانت لأذن خيري يجول لي جبال بالجياد وسول يكون سالخياد هيا من البيخ بلا إماتة ولا تناسؤ ولا سماتة أتاني الباخي كتابا عسما ولولا أخي كل من تعسما أني جزا والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يسعن والدا براس من بارسني براس من يبارز منتخما بارز من براس من بارسني براس من يبارز منتخما بارز من gëmuñu ñun ku dul xadim moom la ñu xam te moonu yee na ñëpp daal maa seen xiw ñu jóg te way fi Ahmadu du mu ñu ñun ku dul xadim moom xam te moo ñu yem na ñëpp daal maa seen ma jóg te way fi Ahmadu te ji la ne ku nekk ñëw jël sëb sëriñ di aj kaw ba jëmu jotee kenn taxaw te moo di ma Ahmadu tey jii la ne ku nekk ñëw jël sa ji àcc kaw ba ñëw jotee kenn taxaw te moo di mbër ma Ahmadu xoolal ku dëddu waa këram tabbi ci géej di wun ngërëm dëddu dërëm gàddu dërëm fu ne la julli Ahmadu julli na fi baba fale maayo ma moo fa julli la bàq ga moo ko julli indi ci réew mi Ahmadu